آمين فاتحة بارك الله ما شاء الله بارك ما شاء الله واباهنا تب واباهنا واو واو أما نياتا لا waaw fa tabaaraka allahu xam naa amul sa waxtaan sant nañ yàlla ñaan nañ ndax wax yàlla ji waaw mu ne euh, xalifa bi Baye Cheikh joxe na ñaar fukki junne moo ko jox euh, ñu doon naafila ak waa jumaa ji Ahmed Babacar mu teg ci fukki junne fa tabaarakallaahu macha allah yaarama caam ñi doon dajale jigéen ñi ñaata la ñaata la fukki junne moom itam moo ko joxe kan ci waaw ab jaam yàlla bu joxe dix mille waaw kay dajale ko lii kii lan la ñebe bii ku joxe lii Ahmed ah Ahmed ah Baye Cheikh ñaar fukki junne Ahmed Babacar de Ahmed lii ëpp na fukki junne wala kii seex ah, Baye Cheikh waaw mu jox fukki ah, moo joxe ñaar fukki junne xalifa bi fa tabaarakallaahu kon nag wax dëgg yàlla Baye seex ñu ngi lay gërëm yi Ahmed Babacar fa tabaarakallaahu ah alhamdulilah ak waaw am na jaamu yàlla mu joxe dégg nga maam 5000. kon nag fa tabaarakallaahu ah yee xam naa ne nag ñun nag xam naa ne duñ ci ay barkeelu waaye dinaa ne jox chèque boo xam ne un million la un million la yéen yéen a ko moom comme ni ñu ko daan doxalee rek eh, fa tabaarakallaa un million wu nag yaakaar naa suba dimanche la waaye bu altine bu ngeen demee bac eh, kii banque incha allahu fa tabaarakallaahu ñoo ko barkeeloo ci alquran alquran moo leen ko jox kon nag ñu ngi ñaan yàlla nangul ñu te barkeel amaat gontaan nañ bég nañ ndax euh, fa liñ leen santoon def ngeen ko ndax nii danay santaane lañ lañ sant ñu xajamal ko wala ngeen def ko defin woo xam ne fa tabaarakallaahu definu jéppi la nga xam ne duñu ko sant waaye da ngeen cee sawar ñu ñu sawar leen a euh, euh, sant fa tabaarakallaahu ndax lii rek mooy dundal pay bi lii rek mooy sagu pay bi lii mooy joxe pay bi lii lañ xamee pay bi lii lañ yaakaar ci pay bi kon nag yaakaar ci yàlla bu mu yàkkeeku ñu ni dem kontaan nañ bég nañ duñ wax tey dara ndax kat eh, wax yi nga xam ne moo gën ci wax yi ëpp ci wax yi ñu wax ko fii di ci tegaat yeneen duñ ko def kon daal fa tabaara gërëm nañ sant nañ di fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla nag yow yàlla lii bu mu dagg bu mu nekk bu mu nekk fin bi de liñ la ko ñaan yow lañ ko ñaan nag téeméeri weeru ko di commencé te nag at mu ne rek ñu ne yore doole doole waxambaane nag joxoon nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doole ñeen fukki góor ñeen fukki góor ñeen fukki góor ko joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñaar fukki yooyu lañu bëgg fa tabaarakallaahu ñu ngi xet lu barkeem ci dara jaam nga jël ñaar fukki yooyu branché lañ ko ñu ñëpp waaw nga xam ne fu ñu nekk rek dañuy am doole ñaar fukki góor yàlla na yàlla def loolu bi xurmati laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah bi xurmati wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim PMTV, la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa sur Facebook et YouTube, vous souhaite un bon Ramadan. PMTV, the servants of Mam Khalifa Nias, wish you a Ramadan Mubarak. You can follow us on Facebook and on YouTube. Thank you. la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa Nia sur YouTube et Facebook moo leen di ñaanal kooru jàmm ak salaam tabi'u qanaatakum GSPM TV fi YouTube wa Facebook خضام حضرة مام خليفة نياس ونقول لكم شهر رمضان المبارك PMTV, la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa sur Facebook et YouTube, vous souhaite un bon Ramadan. PMTV, the servants of Mam Khalifa Nias, wish you a Ramadan Mubarak. You can follow us on Facebook and on YouTube. Thank you. PMTV la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa Niass YouTube ak Facebook moo leen di ñaanal kooru jàmm ak salaam taabi'u qanaatakum GSPM TV fi YouTube wa Facebook xudaamu xadaratu maam Khalifa Niass ramadan al mubarak PMTV, la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa sur Facebook et YouTube, vous souhaite un bon Ramadan. PMTV, the servants of Mam Khalifa nes wish you a Ramadan Mubarak. You can follow us on Facebook and on YouTube. Thank you. PMTV, la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa YouTube et Facebook.